Sénégal mooy réew bi tëj ay buntu université ci àdduna wërngal këpp ngir xañ seeni ay étudiants ñu mën a wéyal seen wutub xam-xam ci daara ju kaw ji jamono jooju arène nationale ubbi ay buntam mbër yi di bàkku amateur yi yore coow li loolee dara waralu ko lu dul nelawal askanu Sénégal rawatina seeni ay ndaw étudiants yi di sàkku ngir ñu ubbi buntu université yi ñu mën a wéyal seen njàng ngir seen ëllëg gën a ñoŋ waaye coowal politique ak réew mu jaxasoo ci ay tension yu nemmeeku tax na dégg leen jafe moo ne de suñu ay njiit jël seeni ay doom rawale leen ci université yu gën a mag ci bitim réew ndaw yi fi nekk amuñu possibilité boobu lañuy jël sacrifier leen ñi xamul fi ñu jëm jël mbëkk mi jël gaal yi wutali bitim réew ngir seen bopp ak seen ëllëg ak dimbali seeni waajur waajur yooyu sa ngem jaxle lool ci seeni njaboot Sénégal toll ci ay jafe-jafe yu metti dafa jot noppi jeex fi ndax suñu ay ndaw yayoo nañu ak éducation bu baax waruñu seetaan benn yoon seeni avenir di yàqu ndax ay intérêt ak coowal politique. voilà mi ngi noonu jërëjëf ma jigéen Diop moo doon def voix boobule Assane ñu fàttali ginnaaw bi ñu duggee ci sujet boobu muy 275 personnes yi fàttule ca Bargny. mi ngi noonu moo di ñu ko euh, wax ay jeunes lañu ay ndaw ginnaaw ba nag lañu gis ab euh, vidéo bi circulé ci réseaux sociaux yi mu mel ni daal dafa am lu Sénégal favoriser am ay buntu xam-xam yu ñu tëj daal di tëj buntu liggéey yu baree bari ba tax na ndaw ñi amaana moo yàq ñàkk seen yaakaar ñu jël yoonu géej gi. waaw jërëjëf soxna bu <clears throat> ñii moom dañoo lim nekk waaye koñ yu limoon koñ koñ yeneen koñ yi bu ñu limee ñooy ëppale waa bari Bargny. Mhm. koñ bu si lim yaay ëppale waa Bargny te li si gën a yéeme soxna bu dafa am ñoo xamante ni sax mënuñoo wax xamuñu lay wax ñu ngi nekk ci dëkk kaw yi ñu nga xam ne amoon seen i nag jaay leen dugg si gaal gi wala ñu ñëpp dëkk kaw yëpp dem nañ ndekete ah ñu si ñëpp dem nañ léegi nag ñun dëkki taaxee rek lañ gën a gis mais dëkk kaw gi ndekete ñoo ëpp ñu dem moo tax kaw gi daanaka fi ne nii si kanam tuuti mbay mi duutu dox sàmm gi duutu dox dañu am problème defar ko voilà napp gi ñi doon napp dañuy napp fara demaale duutu dox mhm. kon dëkk bi loolu ñu bàyyi si xel benn mhm. beneen bi nag ñaar yi nga xam ne ñu ngi leen di tëkkale moom jërut tëkkale. Mhm. mooy làmb ji ak université bi. Mhm. bu nekk yàgg na fi. bu dee université bi ku nekk jaar na fi kenn mësu koo tëj. Mhm. kii nag jaar na fi xool na li jàpp na ni lii mooy li gën ci moom wala lii mooy li gën ci réew mi mu tëj ko. kon affaire am la. làmb ji it gis nga ko fi la ko fekk lim man rek mooy dooleel ko bu ko mënut dooleel mu ba noonu mais mënu koo tëj mun mënu see def leen am na ñu yore làmb ji ñoo koy doxal kon buñ boole làmb ji. ak université bi buñ boole football bi ak université bi buñ boole basket bi ak université bi université bi ak këru jàngukaay la dañ fay jàng sàkku xam-xam ñoom ñoo jaar fa ba am xam-xam ñoom ñeeneen war faa am xam-xam ñu leen déedéet yéen waru leen am xam-xam ndax bu ngeen amee xam-xam da ngeen di ñëw fi ñu ñëw. Hmm. daal di koy tëj. waaye buñ ko booleeg ay làmb ak yooyu nañ xool lan moo tax. mu ah, tëj ko Assane bu fekkee keneen nga ne dañoo bañ ñu yeew ñu tëj ko kon kay bul tijji kii tijjil yaa ngi ci stade bi tijjil stade non stade bi moom noonu la amu amul jàngat amul xalaat. lu tax déedéet waruñu see jàngat waruñu see xalaat dañuy war a rek bégal si suñu xol bu ñu ko manee bu ñu ko mënu seetaan bàyyi. d'accord waaye stade moom moom wax dëgg yàlla sa jamaa sa jamaante ka opposé. stade bi ak stade bi ak sa jamaante ma époncé. <laughs> la jox la nduur ami nduur joxuma ko nduur moom <laughs> naa fii bu ma nee koy am ko jox <laughs> si lay génn ci ma époncé. waaw. waaw ah, mbokk yi lu ngeen am jël leen. waaw. alaaji euh, 275 la ñu wax ni ñooy ay jeunes yu faatule ca Bargny ay kër yu wuute nag ñoo dajale def ay recensement daal ñu wane lim boobu ginnaaw beet vidéo bi ñu illustré wane na ay gaal wane na université wane na am po mu ne ci réew mi ñu ni daal lépp li leen ko teg mooy politique bu bon bu yàqu bi ne ci réew mi waaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaanal d'abord ñi nga xam ni génn nañu àddina yàlla na leen sunu borom xare ci àjjana yu kawe mu nekk loo xamante ni bii tey lii deuil national waroon na ci am. Mm-hmm. réew mi sëngëm ñu wàccee drapeau yeeg yëpp xam ni senegal am na lu mitti loo xam ni dal na ci kawam. Mm-hmm. nit ñi yëg ni am na lu xew mais gis nga mi ngi mel ni comme si rien n'était. Mm-hmm. moom léegi mooy dëkk boo xam ne ndaw ñi dañuy faatu comme ay weñ mais mel ni comme si. dara xewut mhm. loolu nag tiitaange la parce que dañ ne ndaw mooy avenir u ëllëg mhm. donc bu ñu leen di ñàkk te amul benn réaction day mel ni ndaw ñi moom yitteeluñu mag ñi mhm. parce que ñi ko war a naqarlu tey tey dafa mel ni nekkuñu ci mettitlu li nga xamante ni bi xew na ci jamono ji ñu nekk nii loolu nag vraiment dafa nekk loo xam ne bii son bu mhm. euh, mbir la moo xamante ne bii vraiment mbir mu mette parce que man bu ma déggee chiffre bi dama tiit dama ne lii lu garaaw la Assane def na ci jàngat bu am solo mhm. que ni ñi dem ñëpp ñi te ñi dem genn wàll gi yëpp ay liggéeykat lañ ndaw mhm. tollu seen digg doole pare pour sacrifier pour dem liggéey famille bu nekk daanaka dañuy seet ka nga xam ni kii jàkkaar nañ ci moom jom fulla ak fayda mm-hmm. bu ñuy investir ca ñooñ lañuy ñuy ci ñi nga xamante ni bi wane nañ fii ay kii comprendre nga jom ak yooyu mm-hmm. ñenn ñi nga xam dajale nañ seen xaalis wane ak jom ñooñu ñooy dem mm-hmm. ñi ñi perdre xamoo lan la parce que bu demee tey bañ lay wax naan la enseignant yaa ngay dem imam yaa ngay dem fuite de cerveau maanaam ñiy dem ñëpp songe bu loolu réew mu muy dem te tiitoo vraiment ña jiite réew ma xaw ma ci lu ñu ne. Mhm. waaye wax dëgg fa yàlla newuñu ci luy doxal réew mi. ok parce que loolu tiitaange la war mhm. li nga xamante ne bi wax ngeen ko nag mu jëm ci. Mhm. université yi tëj. làmb yu bi ndaw ñi ñoom ci seen jëmmi bopp. dañuy wax ne ku la dajatul yow yaa war a daj sa bopp. bul nangu ñu di la joxoñ yenn yi. donte tey jii. am na ñu bari ñoo xam même fi mu toll nii les lutteurs. yi nga xamante ne bi ñoo ngi ñoo waroon na ñoom ci seen jëmmi bopp boycotté làmb. lutteur waaw ñoom ñëpp. lutteurs yi. waaw yow lutteurs yi gisoon ñu demoon fee di lëmbal. fee pale waaw waxuma ñooñu quoi xam nga. seega tey gis nga fi mu toll nii réew buy defaru léppay àndandoo defaru mais gis nga réew bu yàqu léppay. àndandoo mais doon ma alaaj ñi demoon fee di lëmbal ñooy ñooy. ñooy booy seega dama bëgg ñu xam rek sensu réew muy defaru ak réew mu mu yàqu. gis nga lii ñuy wax ni làmb yii nga xam ni minorité ñoom ñoo ciy jariñu depuis que làmb di làmb ba nëgëni mhm. làmb ji normalut mhm. normalut benn yoon depuis que làmb ji di làmb léegi limal ma cent personnes yoo xamante ni bi tekk nañ ci làmb boo ko limee doo ko romb dix personnes rek cent non dama laa jox la dama la xam dama ko ah. yokk waa ne la jox ma cent personnes amu ci yaa ngi dégg mhm. ñii ngay gis nii ñu naan am nañ oto am nañ kër ak am nañ kii minorité lañ daanaka cinq lañ sax. yaa ngi dégg bariwul. six kay ñaata mbër ñoo nekk ci écrit yi. yoo xamante ni bii bu ñu añee dañuy lijjanti kii maire diw moo may jox fataaya maire diw moo may may fonde maire diw moo may may kii loolu rek ngay dégg ba noppi ñu bëgg laa gëm ne la facteur de développement la ban développement ñan ñoo ciy développé loo xamante ni bi dañ koy def des milliers de personnes nekk ci juróomi mbër juróomi nit di ci tekk loolu bu ñee mi ngi dox doxut baaxut niñ ko hmm. tegee moo baaxut làmp ji nag ñoom dañu war a xam ne tey. gis nga réew mi buy defaru hmm. làmb ji ci boppam day defaruwaale waale. Hmm. léppay defaru ñoom ci seen jëmmi bopp ñëpp dañu war a àndandoo xam ni fii ñu jëmalee mbir mi jël leen ñoom def leen comme ay acteurs. waaw yoo xamante ni bii ñoom ñoo war a ñëw pour jouer divertir nit ñi. Hmm. loolu ñoom ci seen jëmmi bopp bañ gi ci ñoom la war a njëkke ñu lànk ko ne duñu ko def non c'est que. xam nga ko déedéet ñoom ñuy bëri si wutub xaalis. non non non non daf lay divertir ñu ngi diver dañuy divertir askan wi fi mu toll nii. yow li ñu def fan yii passé dem fee lëmbal loolu divertir. li lëmbal seen lëmbal gi fan yii fan yii passé loolu divertir. dañuy divertir askan wi. non ku ko dëkk divertir kay kenn mën naa kon lan la. lëmbal kay lëmbal ku bëgg a lëmbal lëmbal. xam nga c'est que. fa ngay lëmbalee yow yaa ngi lëmbal mais lëmbalee woo fële <laughs> xam nga yow yaa ngi lëmbal. xam nga mais fa ngay lëmbalee <laughs> dimbali ba waaw baal ma boobu sax alaaji maam lu ma la dugalal <laughs> dafa am sama benn waay bu may jokkool mook Sénégal yi bari ñoo bokk gis-gis ci doxinu réew mi mu ni baaxul politique président Sall dafay war a jógee xalaat nañ loo am leneen mais barki dafa maa woo ni ma président Sall yàlla na fi toogaat 2024 ma ne ko lu soppi sa gis-gis mu ni ma damaa seetaan stade bi jooy ma ne ko lu xew mu ni ma ndaw ñi ma foogoon ni yeewu nañ am nañ gëm-gëm laa seetaan ñu fees dell ci stade bi kon ma ne ñii amuñu problème ñii kii na fi toogaat ngëm-ngëm leen fa yóbbu mais moom bu waxee loolu bu boobaa moom it euh, mm-hmm. dugal nañ ko ci guuta gi quoi. gën guuta. waaw guuta googu. parce que bu seetaanee ndaw ñi jooy dafa war a xam ne liggéeyam des na. ci nag mu gën a góor góorlu moom ci li muy nekk maanaam xam nga ndaw ñi boo leen sensibiliser ba nga xamante ne bi am noonu loo xamante ne bi jëlee nga leen fi indi nga leen. Mm. bul xeeb li nga am. parce que ndaw ñooñu ñooy nekkaat ca stade ba di wax Sonko namm nañ la kon ñooñu am na loo xam ne yóbbaale nañ ko. lañu la yóbbaale nag da ngay génne nax-nax leen di jéem a nax parfois. liñ leen di dugalal. ci biir nax yi. Mhm. comprendre da ngay génne yenn sew sew yi moom ngay génne xamal leen ne leen lii ñuy def sax par exemple pour muy ne nii lañ la ko kii parce que tey gis nga nit day jël situation nit boo xam ne du avantage am mu def ko avantage am. comprendre nga. Mm parce que boo seetee combat Ama ak Modou mhm. dem nga ba benn période dégg ñu la yax ne la combat ak Amadou Ba Amadou Ba. Mhm. maanaam nga gis ni li nga doon bañ fële nanguloo nañ la ko fii. Mm. parce que yow bu dee ci terrain politique defoo Ousmane Sonko. mu nekk ak Amadou Ba nawle. waaw waaw waaw léegi nag bu ñu la ko indilee fii. Mhm. léegi waa ji watat na la ba fii bu la ko fi nanguloo fii ci làmb ji rek. ba nga nangu ko rek da nga koy nangu fee. jeex na da nga koy nangul fële. dégg naa donc il faut que nit ñi xam façon moo tax bi nga ma posé question keroog ma ne la mbir mi sport la rek làmb la. Mhm. mbir mi du mbirum lii du mbirum làmb la joo xamante ni bii ay supporteru Modou Lo am na ay Pastef xam nga boo demee fële am na ay kii pour écarter loolu mhm. pour nga xamante ni ñenn ñi dañ lay bëgg a pëtëxal ci benn mbir mhm. pour léegi yow xëcc nañ la fii ci politique ne la Amadou Ba ak kii nga bañ ko léegi nag ñu yóbbu la ca làmb ja bëgg la ko faa kiyal boo ko nangoo foofu rek dañ ko day daal dee dagan fii comprendre loolu mooy li nga xamante ni mais yi am na ñu bind fii nee na yeewu nañu mais amuñu pexe non ah kay pexe am na. ah yow lu ñu la ban pexe li ñu la tegal nii ni la mooy nekk nii. bañ na ko ba léegi gars yi dañ laa gën a xoj. waaw joxatuñ la télé la seetaan ko ay pay par view lañ lay defal. ngay daj coono bu nekk di tuñ fu nekk di seetaan làmb. alaaji kooku fooy boycotté. non non non pexe am na. bu njëkk gratuite la woon ngay léegi nee nañ la da ngay fay doo ko seetaan. waaw pexe pexe am na sooy pexe pexe am na. xam nga lan mooy pexe. Hmm. gis nga dafa am loo xam ne xam nga tey jii gars yi dañ leen tere manifestation. Hmm. ñu jël manifestation yi nga xam ne ñoom ñoo ko moom di ci def seeni manifestation mooy sonkorisé bi nga xamante ne bi moom lañ doon def mhm. maanaam utiliser nañ mbir yooyu léegi lii nga xamante ni bii moom mooy làmb yi mhm. yi nga xam ne moom lañu jël pour loolu ko mhm. léegi na nit ñi def ay xalaat nan lañuy ñuy jëlee làmb yooyu ñoom di ci jàllale seeni message ok di yuuxu rek mais am na yeneen technique yoo xamante bi mën nga ci jàllale say say kii message ak yooyu bu ko defee nga xamante ne bi di gën a sensibiliser nit ñi kon daal yow làmb ji moom ni nga ko jàngate en tant que Sa Ndiogou làmb ji doxul non làmb ji doxul parce que làmb bu doxee mënoo ñoo jël benn société boo xam ni plus dañ ne la six mille personnes ñi ngi ci société bi ñu ne la six mille personnes yii nag ñii ñoom ñoo ci fayeeku euh, cent million ñu ne la ñeneen ñi bu jógee ci cent millions yooyu ñeneen ñi ñi ngi fayeeku euh, cinquante mille non cinquante mille cinquante mille non dama lay wax damay wàcc ah, ah. ñenn ñi ngi fayeeku cinquante mille ñeneen ñi moom dañuy entraîné ba dee dox du ñu fayeeku dañuy topp mbër rek di yëngal yëngal yi naan nii ak nii ak nii ba noppi ñu ne société baa ngi dox bu doxee dinañ leen may mbër ko am combat da nga leen di may Assane te ngaa lu baax lii saa di wax xam nga mooy dëgg fayeeku laa wax yoo xam nga ne juróomi nit juróomi nit ñooy jariñu ci làmb ci am nañ ci ay waaye nag mais affaire bi mais waaye ku am combat da def si écurie am ay xarit jékki-jékki dem bitim réew boo waxee lu ñu la wax affaire bi dafa am ay gaalu na gaalu mbëri kay yàlla xam na ko li ma nañu ay képp ci nekk mbër yu ma xam bokk nañ ci àgg nañ wallaahi waaw man ne xam naa ci ñoo xam ni moom euh, woo nañ ma ñu ngi bitim réew jaaruñu ci gaal yi nag mais nee nañ daal lu tax ñu ni faxet daw hmm. mooy gis nañ ni làmb ji lobby la léegi hmm. dangay bokk ci kii sàngam ñu mën la tëgg boo bokkul kii ñu la tëgg mun ñu bëri ñu xet daw en tout ragal rek. nee ni basuka gars yi jékki-jékki kambaay bi amul. non basuka loo fi wax ni Assane la basuka bàyyi pël. ba pare alaaji démb. ak bàyyi pël. xam ay message des fois naan la wax na li mais du mu ko wax démb. nee na dégg nañu Assane te réew mi nañu déglu Assane nee li mu wax ci stade bi. nee na nee na booy war du ñoo nekk ci stade bi naan Sonko nam nan la xam nañ fi ñu war a dem nee na Assane li nga wax rek kay dëgg mais du ko partagé teg ko fii ma dégg. tegal li basuka wax de. <laughs>